billahi policier ba mu dugal ci bureau ndeysaan kii c'est kii c'est Malick Dieng ndeysaan mu ngi ndëkki mu ngi ndëkki teg na café bi teg na café bi toog na Malick Dieng toog na Malick Dieng ngoog Malick Malick léegi laa bëgg la mu ngi lay nuyu ah naka maa ngi koy fay bu baax ndax na ñoo ñu safar ci safar ak jëgli nuyu naa leen bu baax a baax mais doo invité Benoît mais ñëw leen Benoît affaire yaa ngi fi de caméra bi c'est ça àlla fay ngoog borom car la way way raw maa raw mais naka ma ko fee ça va bi eh, kañ la ñëwaat ci Malick Malick Dieng la dépendre sama sama professeur sama goro ngoog nuyu naa fay naa la naka ndeke baa ngi nii rek. ah ndeke baa ah, nga bàyyi naa ko couleur yi quoi. bàyyi nga daal ak ak sama copain fayal bi baa ngi nii borom anniversaire la. gisoo nuyu naa la. xam nga gars yi dañ leen daan defal anniversaire di leen yónnee ay photo yu waaw waaye man gisoo sama bopp. waaw lii yëpp ab sa àll. jërëjëf kon kooku maa gañe ñëpp. xadi kay. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. ah maa ngi nuyu ñëpp di ñëpp. di leen wax ngeen gaaw a ñëw nag. ngeen gaaw a ñëw nag Fama Ndao ak Marine. ab sa àll. looy woote. Ah, ah. asalaamaaleykum. Ah. maa ngi nuyu mbooloo mi ñu jot a egg ci des ñu leen di xaar tardé nañ nag 9h lañ leen waxoon. ban heure moo jot. il est 10h. kon ñoom ñoo tooñ. ñoo tooñ te xoolal taal xoolal lii rek. président ak présidente bi. xoolal lii yëpp. ah day jàll ak ak euh, Dame Seck. ngi nii de. jëli ko jëli ko jëli ko président Dame. asalaamaaleykum président ne président na nga tardé. waaw damaa tardé dama doon wirde. dama doon wirde waaw dama doon wirde. ana madame tey. asalaamaaleykum yéen eh, a eh, ngi dégg kii du Lamine. mon naa la. looy water, maa la raw ça va yaa ngi si jàmm looy woote tey tey ah jàmm xéwal gu bëri ñu gudd fan ñun ñëpp amiin yàlla dafa ñu barke amiin guddal fan bi amiin dëgëral ànd bi mhm. ci barke Seydina Mouhamad jërëjëf ci borom bés bi aussi jërëjëf Ahmadou ay affaire yaa bagage yaa bagage yaa ngi bagage yaa sama yi serviteur yaa ngoog ñoom ñooy jote neex yi imaam imaam nuyu nañ la. waaw fay nañ leen. imaam dégg naa taw bi tey rek sa bopp de wala. Ah, loolu gars yi koy wax rek waaye man kay li ma xam rek mooy ndekki ba ba biir fees. Ah, li moom eh, xéewal la <laughs> xéewal la. xam nga yàlla moom moo digle ci alxuraan ne lekk leen naan leen li mu tee rek mooy ëppal waaw kulu washrabu wala tusrifu bu leen ëppal yaakaar naa ni waaye nag lekk lekk nañu naan nañu aj ajjana sax loolu dafa ama ah. ah. lekk ak lekk ak naan lekk lu la neex ah. naan lu la neex feebar amu fa dee amu fa loolu tax ajjana jala liggéey fii moom mën nga lekk nekk neex gannaaw lekk nga mën nga feebar mën ngaa naan naan gi neex gannaaw naan gi mën la neex naan lu la amul de amul de amul yàlla na yàlla dugal àjjana amiin looy wax ndekki nañu te lii si ñoo tamit yàlla seen amical yàlla yàlla yàlla gën a dëgëral waay ngeen koy def ay at yi at yu bëri a manqué waay beaucoup de solidarité beaucoup de beaucoup de réussite waay ah. wax ci bésu tey euh, xanaa sant yàlla parce que néega ni daaw ñoo ngi fi woon yàlla may ñu ba ñu fekkewaat ko hmm. ànd ak ak tal hmm. ñu ñaan yàlla nañu yàlla may ñu teewi ku déwén yàlla bàyyi fi ñi nga xamante ne ñëpp ànd rek seen rek seen tal macha allah yàlla may yàlla mon tey bi man euh, maa ngi koy soog a fekke imaam moo ma invité dama jógee Thiès mu ne ma noo def daal teewal ci bi parce que yéene na ma ci kaamil bi mm-hmm. ma kontaan ci lool di ko ñaan mu yàgg fi te waaw amin mm-hmm. jërëjëf jërëjëf. naa la. looy wax si bésu tey di ko rafetlu rek. kontaan ci teewe di ko teewee. waaw mënumaa wax nag. mënumaa wax naka ndekki li neex na. waaw bu ma njóobee rek jaay yi di gis rek. Ah. ndekki <laughs> El Hadj Mansour la. maa ngi laa delloo ziar sama sëriñ noo gisee bésu tey bi. waaw sant yàlla bu baax di sant sunu boroom ci lim ñu may ñu fekkee ko. ndax euh, bésu yiw moom ku la ci amoo payam. Euh, li ñuy wax rek mooy yàlla nañ ko yàlla may ngeen yàgg ko def. ñu yàgg leen fi fekk di ko yàgg teewee. te lépp di yiw. kontaan nañ bu baax a baax ci fekk si leen fi. jërëjëf El Hadj Malick moo xam li laalu ci lu bari wala. non non dañuy yow moom. nànk rek yaay yaay maram waaw ñu nànk rek nànk rek. nànk rek waaw. looy wax ci bésu tey bi tey. waaw sant yàlla bu baax xam nga moom weer bu màgg bés bu màgg borom bés bi màgg. donc sant bu baax ko neex na ñu comme ko la ko koy xéewal sant bu baax. dañ ko santale comme ni ko waxee woon. macha allah ñu nit ñi ñu koy allah. jërëjëf ça c'est kii xam ngeen ko moom ça c'est mon mon frère de cœur mon frère kañ la ñuy ànd Casamance nag. wala Abidjan la ñuy ànd ku ñu seeti. ah non dañuy dem Casamance <laughs> amul problème. <laughs> mais nuyu nañ la. fayluñ la fayluñ la moom frère. mais Sam bésu lan nga siy wax. sant yàlla alhamdulilah. Mhm. sant yàlla rek su tey bi moom bisu sant la. Mhm. parce que man kenn amul lópp lii. Mhm. kenn amul say xarit lópp say xarit. kenn amul lópp say mbokk. kon bu yàlla dogalee ñu daje fii ñun ñëpp. di santale yàlla benn jaamam boo xam ne moom loolu la ci diggaat loolu la ci wax ñu defal ko ci. ñun tamit dañuy jël rek ne alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla lépp sant yàlla la. bii mooy troisième année ñu koy def. yàlla na yàlla may ñu defar ay at yu bëree bëree bëri kenn bañ a manqué. amiin amiin yàlla dëgëral ànd bi. Mm-hmm. yokk ko. Mm-hmm. ku nekk ci ñun yaa xam ni nga bëgg si ci yow. Mm-hmm. te mu gën ci yow yàlla lu ko yàlla def. amiin amiin moom frère jërëjëf. amiin ndeysaan moom la ñuy mujjee moom la ñuy tëjee. moom xutbaam gars yi koy xaar te xam naa ne Layla dafay abidjan soxla na xutba man ah, Abdourahim nuyu naa mais fay nañ la mon frère yow naa kontaan si yow sa teewaay fii. moo la gën a kontaan. Ah, fidèle toujours au rendez-vous. toujours toujours ndax euh, sixième xaal waaw ba sama bés la mais bésu ñëpp la. dëgg la bésu ñëpp la mais damay damay tàmbali di la sant yow. parce que en fait yow tu as toujours été là depuis le début Mais c'est important xam nga sixième A il euh, y a des gens de l'ombre il y a des piliers il y a des gens qu'on voit, il y a des gens qu'on voit moins qui sont aussi importants, même plus importants que les nga qui sont masse bi exubérant et cetera. tu fais partie des piliers il faut il faut jamais l'oublier euh, man je fàttaliku ndaje boo xam ne ak lu mu et et en fait ce que j'apprécie chez toi tu es toujours positif donc c'est important il faut rendre à César ce qui a à César.

mon frère, on va faire plein de choses, Inch'Allah. Je pense que fini, que Absa, wala de Gofale Philippe ça peut être des lieux de rencontre. Ah. yow borom la Rose borom la Rose. la grosse, Rose bi yow yow grosse, ak mais parce que Iba c'est. Euh,

di toroxlu te di ko ñaan mu doole ñu wér ak wér suturaal ñu ñëpp ba jàmm ji ñu am dal xel bi ñu am mu sax parce que Iba jàmm rek am solo leneen am solo kontaan naa trop ci mais mais yàlla na yàlla sàmm la. Iba Adja Leila moom xam naa ni ñuy def soo moytuwul daa ñu dajale une fois dem defal ko safar wala à Abidjan. mais il y a une classe business business voyages. mais mais quand même dama koy xossi sa yu mais mang koy sante fait, ndax euh, en fait Leila e A daf ko ñor c'est-à-dire Leila e A daf ko ñor diko dundal après dundé 6e mais la ah ñooñu nak euh, mom mbokk lañ ñoo Benoît ak Jacqueline dañ ñoo bëgg gis nga Benoît ak gis nga man bi ma yàlla dimbalee ba ma dem seeti Benoît seeti la famille sixième A ci ren bi sentiment yi ma dund sentiment yooyu bariwul li ma ko dund keroog bi mu ubbee buntu këram man Pambow ñu gis ko euh, ak Ablaye Sall

Iba lu leer la law dañ ñëw bëgg xol man ma ngi leen di ñaanal ñom ñaar wër ak wër Jacky mom Jacky ah. mom mom fannu guddu 150 cent cinquante ans xëy na dana jéng déet déet Benoît def ko 152 légui deux après fu toll ni ah. mom mais mais danaa la xamal Benoît ah. campagne am boobu da ci entraîné Iba don nak Iba bul nax mais yor nga ma euh. ah ah dugg nga ma ba jox ma société. ak ah, karawam ah, mais yow sa karaw yóbbu naa mais mais ana dàkko laa ak ak ah dàkko ah. nag Adja Tàkko maa koy xaar. xaar ji. mais euh, man Iba dama la bëgg laaj yow. waaw Adja yow Marrakech nga bàyyi woon ci buntu këram. ndax ma nga foofu li ba léegi. Marrakech dafa dem ba yàq xaw ma fu mu mujjee. dafa mais Iba da ngay def parce que parce que Iba. fii ci biir si jamono am na ay soxla yu baax yoo xam ne nii am na ay soxla yu baax yoo xam ne fii sixième A soxna ab saan mii. soxna tàkk ko. ak ñeneen ak ñeneen. mais faaw ñu def ci dara. mais gis nga mara. gis nga mara bi ñëw na. léegi après dañ jox dara jazakumullahu xayran yàlla yàlla fay. yàlla yàlla fay yàlla yàlla fay. merci beaucoup mara nuyu naa la. kooku sëriñ waa ji yaru na léegi de. waa ji yaru na de kan la mooy nu amee nii. ah bu nu amee nii. bu nu amee nii bu yaroo. Ah. amul problème bu yaroowul ma defal ko bagage. defal ko bagage waaw moo tax fan yii moom gisoo dafa tëj laa miñam. dëgg la yéen ma <laughs> Bilaja. naka ngeen def bu bu bees yaa génne bu bees. waaw suñu doom bi ñu xaar bi gars yi ñoo ngi tànk yi taay moom neexul. oom yi taay moom solo. barki sax. mais nag yëy ma ci wi. wala non kërën kërën gi baax na si. kërën kërën gi baax na si. waaw mais boobu à suivre la. Abdourahim lépp lu mu def tuub naa tuub naa Adama Ndiaye lool soxna Khady Doye waaw yéen ci même ayaa lool Thank you. mon frère nuyu naa la. salaamaaleykum. maaleykum salaam ah. maaleykum salaam da ngeen dawal coono waaw allah. macha allah rafet na teg nañu lépp macha allah. la wax journée tey bi. ah non journée bi kay moom sant yàlla yàlla ñu yàlla may ñu fekk ak yu bëri comme yàlla ñu fekke woon ko daaw ren ñu fekke waat ko. sant alhamdulilah. borom anniversaire ba mais ana laa dus. ana laa dus xam naa mi ngi ci yoon. kontaan rek ci waa Cité Ba vraiment kontaan naa tàkku bu sell bi. tàkku bu sell maa ngi fi ñëw borom bâché. borom bâché xam naa tey moom fii la bâché. mais fii lay bâché fii la ba la bâché bâché feneen. ok kontaan nañu. waaye doo demee fenn. ana Xadi. waaw ah, ana Mohamed. ah.